monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi leen di nuyu man tamit. Alioune euh, Diallo di délégué personnel MEDIS euh, waaye chef de service contrôle qualité tey MEDIS ñu andil ñu xibaar muy euh, li nga xam ne moom mooy relance su activité yi nga xam ne nee nañu balaa weeru septembre bi ñu nekk dina door. li ni lañ bëggoon a xam ndax dëgg la. waaw loolu dëgg la en fait comme ni ngeen ko xamee ah Médis donc euh, euh, depuis presque euh, un an président bi moom waxoon na joxoon na volonté pour que en fait état du Sénégal rentre ci capitale bi. Mhm. donc mois de mais passé en fait il avait dit waxoon na ko ne que moom waxoon na ci boppam ne en fait ils vont mettre cinq virgule cinq milliards et que c'est derrière nous. donc depuis mois de mais nag ñi ngi si ñi ngi si yéeg ak wàcc yi mais dafa yéex quoi euh, dafa am ay lant li ñuy wax ay lenteur administrative mm-hmm. mais dernière nouvelle yi ñu am moom mooy en fait si mu weer bi ñu nekk ni balaa weer bi di dee donc dañ dugal dañ dugg si capital Médis bi euh, ay usine bi reprendre la mën nañ jàpp ne balaa septembre euh, di jeex Médis Sénégal dina reprendre ses activités ak ban wala si ñaata ci budget ngeen am comme fonds de roulement ndax liñ fi jotoon a dégg tamit njitu réew mi wax ko moom la ñuy accompagner su activité yi wala. waaw ñoom euh, état bi comme ni leen ko ni ngeen ko xamee en fait ñoom dañuy dugg ci euh, capital Médis bi parce que avant état du Sénégal ñoom euh, ils étaient à moins de un pour cent si capital bi mais maintenant njiitu réew mi waxoon nañ ne nañ ci dugal cinq virgule cinq milliards. Mm-hmm. donc pour augmenter seen seen seen part yi. Mm-hmm. donc euh, je pense que loolu moom sa tient toujours donc je pense que dinañ ko jot incha allah dans un premier temps trois milliards dañuy njëkk dugal. donc euh, pour usine bi commencé tourner après li si des euh, dinañ ko jot après. tey relance bi du yomb euh, parce que di ngeen dellu si waat ak personnel bi nga xam ne amoon na la xewoon. balaa ngeen mhm. di arrêter définitivement liggéey bi. nan ngeen mhm. fas yéene def justement ci modalité yooyu yëpp. waaw modalité yi en fait loolu c'était entre personnel bi ak administration Médis loolu déggoon nañ ci depuis mois de novembre passé. donc euh, yàgg na donc ba am benn protocole bi ñu signé ak ñoom donc loolu tënk nañ ko ba pare donc MEDIS moom lu mu doon xaar rek moom mooy état bi dugal xaalis bi li ñu wax ci protocole bi ñoom ñu mun ko respecter fay seen fournisseurs yi donc euh, waaw loolu rek moo ci def mais côté personnel bi moom loolu baax na donc ñun tam personnel bi lu ñu dem lu ñu dem lu ñu dem ñaxtu tamit moom mooy pour état bi duggoon ci capital bi état bi tam def na ko day dugg ci capital bi. d'accord léegi nan lay demee reprise bi justement pour ñu am un peu modalité. waaw bi moom bu ñëwee moom usine bi comme ni ngeen ko wax usine bu taxaw lu yàgg moom bu ñëwee en fait euh, ñun ñun nañ dafay arrêt quoi. def arrêt bu toll nii mais yora des activités de maintenance donc euh, euh, des activités de nettoyage donc euh, et des activités de qualification xoolal càmbaraat càmbaraat kii équipement yeeg yooyu yëpp xool nax mi ngi si yëpp a ngi dox bu baax parce que fan yële passé sax euh, vers mois de mais boo président waxee ne que en fait Médis problème bi c'est derrière ñu commencé woon nañ sax xool yenn équipement yi mais après dafa yéex ba ñu taxawaat. yan mooy enjeu yi enjeu reprise bi. enjeu moom en fait enjeu bu njëkk ci population sénégalaise moom mooy déjà rupture médicament yi ni ngeen ko xamee médicament basique nga xam ne nga da ngay dem jaay la tablette bi cent franc tey boo demee ci pharmacie bi doo ko am da dem jéggaane jéggaane gi kaw donc souvent mu nekk en rupture donc produit yooyu médecin moo ko doon defar te am na yoo xam ne sax mu ngi en stock au niveau du magasin mhm. donc yooyu bu ñu démarré ba ko mën a mettre à disposition population bi en même temps bu ñu paree requalification équipement yi reprendre production bi. tey euh, justement comme niñ ko waxee problème yi bëri woon na. Euh, li jëm ci personnel bi waxtaanoon ngeen ko euh, ñu tegal leen ci table bi cinq virgule cinq milliards. ci euh, mm-hmm. capital euh, société mm-hmm. ndax loolu mm-hmm. euh, mën nañ ci jàpp li nga xam ne moom mooy salaire yi ñu waxoon ne amaloon nañ ko muy vingt mois sans salaire yooyu wala dafa am leneen li nga xam ne moom la ñuy dugal xaalis boobu waaw en fait loolu noonu xam na en fait moom mooy business plan en boobu ñu defee business plan li ñuy wax business plan wu usine bi donc direction Médis bi en fait ñoom ak cinq virgule cinq milliards yooyu noonu jàppoon nañ ne dina doy c'est sûr en fait dina am ay fonds propres yoo xam ne ñoom ñoo koy indi donc euh, je pense que du doon du doon problème quoi donc déjà cinq virgule cinq milliards yi donc euh, dinañ ci mun a régler lu ñu soxla yëpp quoi ak seen fonds propres ñoom. développement industrie pharmaceutique gis nañ ko mais teewul ba tey Sénégal day jëli euh, bitim réew ay garab tey perspective yi justement est-ce que ubbi bite delluwaat euh, MEDIS andiwaat MEDIS euh, dina tax Sénégal mu am mu respirer un peu ci ci domaine boobu. waaw waaw waaw na parce que MEDIS comme ni ngeen ko xamee usine usine usine tunisienne la donc euh, boo xoolee la plupart des pathologies yi am si si si si si àdduna donc ñoom am nañ garab yëpp. am nañ garab yëpp am na une partie même on parlait tout très souvent tout récemment ci affaire lu ñuy wax ay anticoagulant donc pour yenn maladie grave Covid yi yooyu am nañ ko donc ils ont des euh, am nañ ay garab yoo xam ne pour ay tension la am nañ ay garab en fait ñoom large gamme boobu yëpp en fait ñoom amoon nañ projet pour commencer ko commencé woon nañ ko sax di ko déployer fii nii au niveau du Sénégal parce que usine Médis bi tamit lan may différence am yeneen usines yi nekk usines yi nekk Sénégal moom usine la boo xam ne day defar garab en fait du du du conditionnement kese ñoom dañuy dañuy jaxase garab bi defar ko ba mu génn produit fini donc loolu tamit du lu loolu tamit du yomb quoi. ci fàttali rek yan garab euh, la ñu mën a euh, jàpp ne euh, c'est c'est proprement donc produit local bu bu Médis mm-hmm. donc euh, yan garab euh, moom may comme lu mu la wax sànq paracétamol doliprane doliprane kii doliprane euh, comprimé doliprane sirop donc phénobarbital bi nga xam ne que même si weer yële passé déggoon na mais ñi nga xam ne dañuy am crise dañ koy jël nekkoon na en rupture. Hmm. donc Gardenal donc fer acide folique bi nga xam ne ñi nga xam ne jigéen ñi loon war tam dañ koy soxla yooyu tam dañ koy defar fii. donc waa Nivaquine bi nga déggoon ci Covid bi en fait à un moment arrêté woon nañ ko defar mais ak Covid bi judduwaatoon na. Hmm. donc loolu tam garab la boo xam ne tamit en fait am nañ capacité ñun pour defar ko. donc annuellement euh, seen chiffre d'affaires fan la daan toll. Euh, annuellement mënu ma la wax exactement parce que xam na fàtte na chiffres waaw parce que en fait gëj naa sëgg si chiffres yi quoi exactement si déficit yi ñu daan dégg souvent en rupture médicament. Euh, si si si si si comme lu mu parce que ñun en fait avant même tunisiens yi di ñëw ñun garab ñu dem defal moom mooy garab garab yi xam ne ne en fait c' des trucs accessibles yoo xam ne ay garab yoo xam ne dafa si population bi. garab yoo xam ne la jaay tablette cent franc tablette truc léegi nag médecin boobu mu moom daf donc euh, ça va beaucoup contribuer même si si rupture yi te je pense que dina impacter tam bu baax si affaire fraude garab yi parce que tamit nit ñi bu ñu amul garab yi c'est sûr que marché bi bu nekkee dafa libre moom dañ koy jéem a dem approvisionner par d'autres moyens. mm te je pense que en fait reprise usine bi dina tax en fait marché yooyu yëpp ñu combler ko quoi. dina bëri impact mais. sur le prix parce que tey la santé est chère comme ni ñu koy waxee mhm. fu nekk. Mhm. garab yi cher na. lu mhm. ne cher na ndax tey am usine euh, si mim réew euh, dina am benn impact ci prix yi. waaw prix ma jox la benn exemple rek ñun boobu Médis tëjee da nga dem am tablette paracétamol ba nga dem jënd cent franc léegi ngay dem ñu remplacer ko beneen garab boo xam ne da nga koy jéggaane ji si kaw nga koy jëndee trois cent wala quatre cent franc loolu rek Euh, impact bu rëy la parce que ku dem génnee cent franc dem bay génnee presque euh, trois cent franc loolu wala quatre cent franc loolu loolu lu la. Mm-hmm. en même temps tamit je pense que état bi parce que projet pharmaceutique bi moom état bi dañ ciy ubbi seen bët bu baax. Mm-hmm. donc parce que ñoom même y' a de réformes yoo xam ne tamit ça va permettre à ce que yenn taxes yeeg wala yenn affaires yu bëri euh, wàññeeku ba ne ne que prix sax nañ ko mën a xam naa dina mën a dina mën a wàññeeku parce que tamit defar garab tamit comme ni ngeen ko xamee dafa bëri ay kii quoi dafa bëri ay impact tamit dafa bëri ay taxes ak ay yooyu noonu quoi mm-hmm. donc yooyu tam ñu ngi siy liggéey je pense que loolu yëpp pour soulager population bi la quoi mm-hmm. ndax mhm. tamit seen euh, defar garab maanaam production bi Sénégal mhm. rek la yem ci wàllum couverture wala da ngeen daan yóbbu tamit bi la yeneen non ñun dañuy jaay sous région bi yëpp dañuy jaay sous région bi parce que en fait comme ni nga xamee Médis kii moom moo ko moomoon Sanofi Sanofi mhm. c'est les français ñoom bu ñoom en fait am nay garab yoo xam ñun da nga dem defar fii nii dafa am remonté ba centrale bi fële ne le Paris. Mhm. Paris centrale de distribution bi en fait euh, ñu distribuer ko si sous région bi donc ñun sous région bi yëpp da nga ko dem couvrir. Mhm. waaw waaw du nekkuloon Sénégal moo tax ñun sous région économiquement économiquement tamit dañ koy sentir. si si économiquement kay dañ sentir bu baax. <laughs> mais dis ñuy wax lu biteem jamono ji nga xam ne mbas maa ngi fi jamono jooju tamit nga xam ne Sénégal moo ngi waajal boppam euh, ci production euh, li nga xam ne mooy vaccin muy ñu jëm ci deux mille vingt deux domaine bi la secteur bi la. mais tey ndax yéen dinañ leen associer Médis ci médicament déjà ñu ngi koy wax euh, dans le monde ne ñoo ngi waajal garab bi yu jëm ci Covid ndax yéen euh, déjà am ngeen euh, benn écho wala yaakaar ne dinañ leen associer ci projet yooyu nga xam ne àdduna ñu ngi koy jël pour xeex mbas mi. waaw dinañ ci associer ah parce que comme ni mu la wax rek loolu moom ñu ngi gërëm bu baax njiitu réew le président de la République Macky Sall parce que tout récemment sax en fait xam comme ni ngeen ko xamee Institut Pasteur en fait y a un projet ñuy defar yenn vaccin Covid yi de France que démarré na ko même président bi tamit amoon que Médis bokk si loolu parce que yëpp garab la ah c'est euh, am équipement yi adéquat yi am personnel bu qualifié bi te loolu je pense que mi ngi fi parce que euh, am nañu ay locaux fii ñun dañuy defar ay perfusion dañuy defar ay garabu ay ay piqûres ak yooyu noonu donc yooyu sorante wu ñoom quoi. donc Sonatel bi c'est juste def benn investissement te je pense que président bi en fait Médis ak Pasteur la waxoon ne ne que en fait ils vont beaucoup contribuer à ce que euh, genre vaccin yooyu noonu ñu ñu ko di defar Sénégal quoi. Mm. parce que en fait je pense que ñaar ñooñu la ñoo fi nekk ñoo xam ne mën nañu fabriquer parce que fabriquer ak jël conditionné nag c'est différent quoi. pour reprise bi euh, dispositif lépp yemb na locaux yeeg lépp bu ñu waxee ndorteel rek ngeen démarrer effectivement immédiatement. fait parce que lu ko yaa ngi fii donc c'est sûr que comme nu mu la wax sànq dina am ay maintenance moom mooy xoolaat raxasaat defaraat ulelaat donc euh, qualifié waat parce que tamit équipement yi ñuy defaree garab tamit il faut dafa am lu ñuy wax qualification étalonnage yi ñu siy def yoo xam ne pour xool ndax li nga koy laajte max mun la koy jox. donc loolu yëpp je pense que personnel maintenance bi ñu ngi fi donc équipe yaa ngi fi en euh, collaboration ak suñu suñu suñu collègue Tunisie yi donc ñoom pare nañu pour ñëw jàppale ñu. donc personnel bi euh, fa nekk nu ngeen di wala euh, yeneen ressources humaines la xool yi. non personnel bi am na am na am na une partie ñoo xam ne génn nañu àdduna si vingt mois yi donc am na si ñoo xam ne nekk démissionné nañ dem nañu donc mais base bi je pense que mi ngi fi ba tey quoi. donc c' est sûr que bu ñu soxlee renforcer ils vont renforcer quoi mais base bi sookul bi mi fi ko Alioune mhm. Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw man maa leen di jaajëfal.